boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu bind abone bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi irrahmani irrahim sallallahu ala muhammadin bisi fasahati lisaani habli fasahatan wa nawirana haqli wa bi mutaharil janaani lisrai sadri wa anni kulla durrin saxsihi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk yi dellusiwaat nanu di leen nuyu fii nu leen baaxoon nuyoo di leen siyaara di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi saahibul fadilati cheikh Mouhamadul Muntaxa nu cheikh Mouhamadul Bachir mi tooge jataayu xaadimu rasul yàlla na ko sunu boroom gën a yàggal te defal ko ak wér gu ànd ak wérle te wéreleel ko ñi ko wër nu am mbégte fas yéene àndaat ak yéen ñi nga xam ne yéen ngi topp seen site internet Istikhama nu fas yéene ànd ak ci téere Cheikh Mouhamadoul Bachir radiyallahu anhu nu fas yéene indi tey waxtaanu fukkeel wi ak ñett bu ngeen fàttalikoo waxtaanu fukkeel wi ak ñaar noo ngi taxawoon ci waxtaanu Lat Joor ak sunu sëriñ ba sunu sëriñ sàkku ci moom mu bàyyi lépp te ñëw ànd ak moom ci yoonu yàlla ni ko mbokkam mi Muxtaar Joob defe foofu lañu war a tàmbalee tey waxtaanu fukkeel wi ak ñett ci xëtum ñaar téeméer ak juróom Muxtaar Joob nekkoon na bokk ci ñu jëkk a jébbalu ci sëriñ bi ci gis gu mu ko gis falat joor jortu naa ne boobee ba ko baayam daan yónni la ndax moom mësula dem ca ñoom ci wàllu boppam mukk moxtaar nee na ba suma ba dalee ci sëriñ bi ma fekk ko du dugg ci lenn ciy wax du ca xuus dafay jublu ci boroomam rek di jàng alxuraan di jaamu yàlla ni mu ware du yëkkati ab jësam day xool suuf rek la ma dugg mbir moo xam ne mënuma koo nettali ngir sopp ko ci ragal ak màggal lislaam daal di dugg ci sama xol fasaasa ci njaal benn yoon wu jëkk wa ci sama xol bu jëkk bi ma fàtte lépp lu ma nekkoon Lat Joor sama mag yëg loolee ndax nekkoon na di ku yewu mu tàmbali di ma seetlu diirub la sëriñ bi nekk ci nganaleeg Lat Joor waaye mbir ma di dolliku ci man mooy cofeel ga ñu màndal sama xol ak soppam ma tàmbali di ko jige te toogaaleeg moom di ma gënal ba Lat Joor xam li ma nekk ci sëriñ bi ci bëgg ba sëriñ bi soppi ko jëm cib dëkkam Lat Joor gis ma may ku ñu laab may ku ñu yitteel xamatuma dara Lat Joor muuñ ne ma yow Muxtaar ragal naa sëriñ bi demee na sam xel ma ne ko waaw waaw giñ naa ko ci yàlla loolu mooy la am mu ne ma boo bëggee dem ànd ak moom demal Moxtaar jóom ne daanaka dañu maa yeewi ci rat mu daldi dem tuub ci ay loxoom jébbalu ànd ak moom ba tey nan dellu ci waxtaanu Lat Joor ak sunu sëriñ ba ko sunu sëriñ ne soo bàyyee sa xare bi ak sa dëkk ak sa dag yi ak sa ngànnaay yi te nga dëkkaaleeg man ci kaw lislaam ak beru jëm ci yàlla kon day danga nekk ci wóolu ci jëpp yitte ak ci jëpp njàqare ci waa àdduna Lat Joor ne ko li nga wax mooy dëgg man wóolu naa ne loolu mooy la gën a jaadu waaye ku mel ni man bàyyi àddina ci yoon wu jëkk dana diif ci moom waaye sama xel soppiku na ci lépp lu mu doon xalaat sama mébét dog na ci lii ma doon xalaat ci sa yee gii nga ma yee ci laa biire gii nga ma laa biire sama mébét dog na ci lépp loo xam ne doon naa ko sàkku léegi nag duma la teg mel ni mbir lu may lu may dimbali fa yàlla yowmal xiyaamati ak loo xam ne dana ma ram fa yàlla na ma dimbali ci aw turu yàlla ak ak ñaan goo xam ne dana jariñe ci bàmmeel nanga ma jox ci say càngaay ya nga daan sàkko ya daan sàngoo di ko sol loo xam ne dees na ma ko defal njiit laay ndéem faatu naa te bul ma fàtte ci say ñaan yu baax yi sunu sëriñ yàlla na ko yàlla dolli ngërëm digal ko wattu ak ñaan goo xam ne sëriñ bi moo ko ko toftaleel ñaan ga nag ak balu yàlla la mu jox ko am mbubb mu doon sol mu jóge fa moom daldi koy tàggoo amul yaari ayu bés yu wéy lu may xare bu jóge ci ngóor gi daanu ci kawam bokk na ca xare boobee lu bari ca ñamu dëkkal waa réew ma ca néegi buur ya ak ñi muy lu fën ñoom ñëpp ñu di ko wut di ko wër mu xeex ak ñoom xeexub doomi gor bakkanub gor amul lu may jamono ju jam-jam ya gand ko ngir deret ja mu xàndawi ko ca naaru góoram wa di aji dee te rëng-rëngiwul ca fam taxawoon jéemu la dandu jublu penku ci yéene sayit naka mu ko waxe woon ba muy daanu ci seen kaw ci teenub deqale bésub àllarba atum junni ak ñetti téeméer ñu suul ko ca bàmmeel deqale ya te jàpp ni woon na ca moom mu daw ba raw leen wante ak gëmëm dogalub yàlla ak ngoram gu réy ga ak matam bañal ko loola su dul woon loolu mu daw ba raw leen sëriñ bi tuxu jëm bawal nit ñi naaw di dal ci kawam ni xorondoom yoon yi wubbiku ci wàlli kajoor ak ci wàlli bawal nit ñi di dikk di dox ak seeni tànk ak di wari fos jóge ci mépp mbedd ak ay gëléem yu woos tawat yi ak jaxase yi ak rambaaj yi tàmbali jëm ci nguurug tubaab yi di kalaame sëriñ bi ba nga xamee ne mbiri xare ba mu doon xare ak ñoom dal na te ay ndëggoom sax ci nguur gi ngir jaraafi wolof yi mu am ak i buuram ñu tawat nag bari ñu topp sunu sëriñ bi ak dogug muritam yi fàtte seeni bokki jigéen yi ak ña xamoon ñoom ñëpp ñu dogook ñoom jëm ci liggéeyal sëriñ bi ak dëkki tudd yàlla naka rombe woon ci la wéyoon naka la mu leen jëkk di def loo gannaaw ba ñu jébbaloo mooy taxoo ab liggéey ak dogu bàyyi bànneexi àdduna ak tudd yàlla ak xam lu seen faratay jëm ci loo xam ne tawxiit la walla fiq walla tasawuf la ëpp ci lañu daan jàng nag ci ay taalifam la woon yu mu taalif moom sëriñ bi ndax moo gën a xam ne déggook jamonoom ak la ñu war a jiital ci xam-xam ak la ca war a tege gannaaw loolu bari lool nag siyaare tànneef yi ak kilifa yi waxuma laa ña ca des ñoom seenum riir def na ko dégg fu sori ci gépp wàll ci wàllu Sénégal nekkoon na ci ñoom aw melo wu leen di tàqaleeg ñu dul ñoom melo wa nag mooy farlu ak fogaru ak dajale seen yitte jëme ko ci seen ndigaleel sëriñ du lu dul loolu loolu rekk lay doon lii moo taxoon tawat yi ak kalaame yi bari jóge ci wàll gu nekk yenn yi ci jullit ñi yenn yi ci wóor yi ndax jullit bi dafay ragal ab saawiyaam wéet buur bi it dafay ragal dagg yi jébbalu ji wacc ko fa moom rek te loolee ñu ragal mbir la moo xam ne faw mu am ci duusi mbir mu yees mi jublu si jëkkul ci nit ñu mag ñi li ci sëriñ bi yàgg naa am ci ñoom ku noon ya wër ak ñay xëccoog ñoom di ko fexeel ba muy soog a feeñ di tàmbalee kowe ak maasam ak ñam bokkal jamono dikk na ci xabaar mooy addis ab jullit nekk na ci juróomi tartar jullit bu koy añaan ak naafiq bu koy bañ ak yéefar buy xeex moom ak seytaane su koy réeral ak bakkan buy xëccook moom sëriñ bi gannaaw ba nga xamee ne ci lu amul sikk sariat wattu na ko ci seytaane te ragal yàlla notal na ko bakkanam bindeef yi song na ko te nit ñi ñoo gën a mën a tooñ ci ñaari ndigi bopp yi muy nit ak ginne ñoo gën a réer ngir yàlla mottali ci moom ab nattoom ab coonoom dëggu ba wurusam mu sell ci seen biir wurus yu bon yooyee ba mu yéeg ca ña doon yonent ya ñay waroomi dogu mooy ñañu tànnaat ca yonent ya alayhimu salaatu salaam te mu dëgër ci taxawaayu jaamu ga taxawaay boo xam ne moo ko jagoo moom rek muy maqaamam donn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dikk na ci addis ñi gën a tar am nattu mooy yonent yi topp ña gën topp ña gën ku la gën a baax moo la ëpp am nattu la gën a metti ci balaa mooy fitnay xarit yu réer yi ak pexey noonu yu xel yi ak fiti jigéñaale yi ñoom nag ñooy sa mbokki diine jóge ci jullit ñépp wante jullit ñi biral seenu tawat du leen jàpp ni ngir mbirum sunu sëriñ bi ci wàllu diine ak wàllu xam-xam dafa weex lool wér lool jóge ci sunna ak yoonu ñu baaxoon te ñu tëjjiitu ñu di leen roy dara nekkul foofa lu may jublu nit ñi sëriñ bi ñàkk leen a jublu ñoom te loolu amul sabab suñuy gis yàlla rek moo ko def ak dolliku murit ya dolliku gu sax ak seenu xeeb ku dul seen sëriñ bi ngir matuk sëriñ bi akuk màggam fa seen xol di màgg gog mësula deñ di feeñ ci moom ba muy gone ak ba muy mag ngir teyug walaaya ngir teyug wilaaya ak tedd ngay ragal yàlla ak maandu ak doole joo xam ne xotti na baax ci ak samp jëm ci mbirum yàlla mooy taxaw jonn ci ndigalal yàlla ba mujj lenn ci ñoom di sàkkoo tëbb ci moom ci yoonu méngoo lenn ci ñoom di sàkkoo def ay taalubeem gannaaw bu ñu nekkee ay kilifa ña ca des des ca la ñu nekkoon mooy mel nañu meloon te xam ne yàlla am na lu mu jagoo te di ko jagale dana ko def fu ko neex buur ya nag ak jaraaf ya ak seeni xarit ya jëm ci ñoom mbugal nañu murit ya fitnaal nañu leen nangu nañu seeni alal lépp ci lii ma wax mbirum sëriñ bi di dolli ko ak rëy ak ak màgg di dolli nit ñiit ak jublu sëriñ bi ñu yëkkati seeni tawet kalaame leen ci borom ndar mi nga xam ne moo yilif réew mépp booba borom ndar ne leen ana seenub sëriñ ana fu ñu sosoo ñu ne ko seenub sëriñ mooy sëriñ Bamba te moom aalim la ju nangoo jaamu yàlla xamuñu ci moom dara ci tooñ te aalim yi it kenn xamul ci moom lu jul noonu boroom Ndar tontu leen ne leen kon nag mën nañoo génne taalibe yi ci seen diggante jëme leen ca seen réewum sëriñ ba ca mujjug suufas wal Mbàkke wala Tuubaa chef yi daanu ci kaw murit yi jóge ci wàll gu nekk lakk këri murit yi nangu seeni mbay ak lañu amoon ci alal waaye taalibe yi nag booba seeni dab dafa woyof toy amuñu dara ndax la nga xam ne murid yi tàmmoon nañu ko ci ñagas ñagaslu bañ a àdduna ak tàggat seeni bakkan ñu dikk ñoom ñëpp tase fa kër seen sëriñ sëriñ bi bind ba bataaxel boroom ndar xabaar ba wax ko la am borom ndar toppatoo biir ya dara amu ci gisul ci moom lu ñuy ragal gisul it lu waral tooñ gi lu may añaan rek gu jóge ci wóor yi ak fiir gu jóge ci lenn ci jullit ñi ca seen i daraja ak seen i taalibe yu bari yi war leen ñu mujj di rocciku jóge ci ñoom jëm ci topp sunu sëriñ bi boroom ndar digal leen ñu bàyyi murit yi ñu dëkk fu leen soob feek jexiku wuñu ci ñàkk a ndigal yi ñëpp bokk di ndigal yi nguur gi tëral wala ñu bàyyi màndargay diine lislaam xew-xew yii nag nekkoon na gannaaw bu gàddaay gi amee junni ak ñetti téeméer ak juróom benn ak biir at ma ñu nekk ba loola amee woy añaan yi ak rambaaje noppi lu tuuti sëriñ bi des fa Touba moog taalibe ña doon tarbiyewu ba mu tuxu jëm Jolof fa nga xam ne ay maamam fa la ñu wàcc ba ñu jógee penku ci réewum wolof mu sañ ci Mbàkke Baari dëkk bu ràpp la woon kanami nit ñëpp daal di wëlbatiku jëm ci moom jóge ci suuf su nekk kilifa yëpp labat ak cofeelam di ko won seenu cofeel ñu jóge ci réew mu nekk murit yi ak sëriñ si ak bóor yi ñépp ñëw di siyaare si wooy rambaaj ya fudd jóge ci seen mbankaay la tàmbaleeti di rafetal lënt ya ba mu niru dëgg di melal xise ya ak jumla ya ñu jokk ci ñoo xam ne am nañu ab taxawaay ci nguur gi ak làmmiñ woo xam ne def na leen déglu ñu tëral ci xew-xew yi ay fen yoo xam ne ñoo ko sos ñu kalaameeti sëriñ bi te booba ku tudd la keleer moo yor Louga ak Jolof mooy commandant ba te moom am na ak woyof bopp ak gàtt xel daawul jonjoo mbir ma ci boppam da daan yebal ñeneen boole ca ne turu sëriñ bi ak barik murit yi àgg na foo xam ne ku xamul sëriñ bi dëgg-dëgg dana ko ragal ndax li mu doyo di loon mbirum bindeef yi doonte mbir mu rëy la du ca am soxla du ko ragal du ko yaakaar du leen gis du leen faale ak la nga xam ne sëriñ bi bañal na ko ci xeex mu yaari melo yu safaanoo boo seetee melo wu njëkk wi mu nuru ko bañ jàmm te boo xamee la ci biir kon da xam ne moom dafa mel ni mbir moo mbir mu ne xam na fa muy mujj ba tax na amatuloon soxla ci lu jaamu yàlla sax ci jaari bakkan rek ak na mu daa tagge wàlliyu yi ak wooy xam yi doon jaar fa seeni mbir mujj mu jóg ñi fitna biir yi ci xol yi ak ci xare yi ak na mu leen yërëme woon ku xam sëriñ bi dëgg dana ko wóor ne xelam nekkul woon ci xeex su ko kenn yóbbuwul woon it mu dem ak boppam jëm ci àll yi ba foofu dem fa dina jafe wala dem aji dëkkaaleeg yonent bi fa maddina ngir sopp wéet ak bari ak jaamu yàlla ak ëffal soox mooy kenn bañ koo xam bañ koo dégg bu ko yàlla namoon wante yàlla mu ko mi namu ko noo ngi toll ci xëtum ñaar téeméer ak ñaar fukk ñaar seetal li mu tontu woon Lat Joor ak li mu tontu woon Alburi Njaay gannaawam ndax gis nga kuy laa biire buur yi di leen wax dëgg te du naxanteeg ñoom ci bàyyi loo leen seenub xare di leen digal dëddu àdduna jublu yàlla ci jamono joo xam ne seen yaakaar yépp dafa aju woon ci moom doonte namoon na mel ni mbir naka nga xam ne jéemoon na ko moom buur bi wax ko ko bu wér bëgg mu woote jaar Alburi buur ba sàkk ko ci moom buurub Jolof mu tontu al alburi kem la mu tontu woon Lat Joor mu yokk ca la mu waxan Lat Joor ba mu wax ak alburi dooral na ko am misaal ci ka nga xam ne day xëccoog nguurug tubaab gi ci waxtu wii ci ñoom mi ngi mel ni ku yeew ay xaafam ngir di ko négi ab xew-xew mu yàggal leen ci buumi yeew ga muy sonne seen xont ngir bëgg ñu duuf mujj xaaf yooye ngir seenu réer di daan ka leen di yafal di xëccoog moom ngooñ ma ak ndox ma muñ googee mu leen di muñul du dara lu may nege leen bés ba mu leen xaaroo rek ba mu ëgsi mu rey leen naka noonu seen xëccoo gi ak ñoom ak ñamel ni yéen di tudd jiyaar du dara lu dul junj goo xam ne day mujj di mbas ma wàcc ci kaw aji junj jë tudd naa sellu yàlla mi nga xam ne xam ne mbóoti xoli bindee fi ba noppi bañ koo feeñal ngir fiir ci jaamam yi ba seenug añaan ak seenug lëntal jot ci ñennat ab jotukaay bu muy taw tuumaale koo xam ne dana sib àdduna ak ñoñam gi sib ba muy jort lu dul noona ci koo xam ne du sabab lu ci àdduna sabab sa gën a néew ci mbir mu rëy lool wala mu tuuti lool lu may bàyyi ay pexem ci loxo yàlla du ca seetantal dara da koy wocc ak boroomam ak tànn da koy wocc ci loxo yàlla mu tedd mi yàlla mi nga xam ne ku wakkirlu ci moom dana ko doy sëkk naka moom kookee di tuumaale ak a jort bànneexam not na ko ba mu tilimal diineem ci sagari àdduna yu ràpp yi ta xar ak meddi àdduna yu xesaw yi ta salte ya nga xam ne du ñu jigeel kenn yàlla te du ñu jariñ fa àllaaxira wante yàlla mu kowe mi mi jubal ku ko soob di réeral ku ko soob tey aji xereñ tey aji xam ji namm na lii ngir mu nekk sababas texeem moom sëriñ bi te sababas lu bon ak ak texee di ca ña sababan loolee ña nga xam ne bu ñu gisee lu rafet suul ko bu ñu gisee lu ñaaw siiwal ko buñ ko gisul sos ko am na waykat wu ne lii xiilatun fi man yennumu walaysa fil kasaabi xiila man kaana yaxluqu maa yàqu lu fa fii xiilati fiihi la am naa pexe ci kuy rambaaj di yokk samay wax waaye awma pexe ci fenkat kuy fent la ngay wax sama pexe néew na ci moom wante yàlla xam na mbóot yi ak lépp lu nëbbu dana xamit ay wor dana teewe déy ga delloo na pexey noonam yépp ci seeni dënn feeñal ay jalooreem ak i mayam ci toroxteg ay noonam moom sëriñ bi danga gis ci kanam lenn ci may yooyee fa ñu tudd dellu si sëriñ bi jóge ci tukki bii tukki bi nga xam ne biir yi mooy la ñu jiitalam bu neexee yàlla mu kowa mi da nga gis lii ma la wax noo ngi dellu si léegi feeñal mbiram xew-xew ba ma tàmbali woon di ko nettali ma ne bala clair ma nekkoon Louga gëmee la rambaaja wax mu jottali wax ja boroom ndar boroom ndar nag sàkku ci sëriñ bi mu dikk wuy si ko ci boppam waxtu wu ko lekkaleer jotulee sunu sëriñ fekk mu am ngant mu yónni maam Cerno mbokkam di ndimbalam di loxoom ndeyjooram mu wuutu ko wuj ji leen ndar te fekk na yàlla àtte rambaaj bi defoon na sikk ci seeni xol noonu na leen bu ngeen ko wooyit it du leen wuy si bu leen wuy si it du leen faale ndax xam na ci ak woyofal àdduna ak muccuk dënnam ci lépp lu bon woyofal gu mel ni woyofal ak ku yewoodiku ngir ak dëddoom dëddu goo xam ne sàkkuwu ko fexewu ko yàlla mu kowe mi moo ko ko may te xam na yit moom kookee doon rambaaj tiitum na àdduna ak mbiri àdduna du àgg fa moom boobale àgguwaay ba nga xamee ne sëriñ bi dikkul te maam Cerno rakkam dikk buur ba xaw naa xottiku ngir mer ngir na lii ñu waxoon niroog la am mu daldi di boyal loxoom commandant bu Louga moom borom ndar ca sunu sëriñ mu daldi waajal ay soldaaram moom commandant bu Louga amul sikk ci ne day xare ji te sunu sëriñ xamul woon ne mbir ma àgg na leen foofu ba solo bi dikkal ko rek sëriñ bi ne xawma woon ne sama ñàkk dikk ndar àgg na leen fii mu yabalaat sëriñ Ibrahima weneen yoonu ñaareel ngir mu leeral leen ne dara téyewu ko lu dul ngant rek su fekkee ne am nañu aajo ci moom ba tey lu jàppandi la ci man ma dikkal leen bu ñu yàq seeni alal ci coonob waajal xare bi ànd ak tur wi ñaaw wiñ ci amee ak dég-dég bu ñaaw bi fii fi man aw ay nekku fi ab xare nekku fi sëriñ Ibrahima nag taseeg ñoom fa jeewal la lay biral ne bir yi ab tàmbalikaayam mooy ña añaan ak seeni nirale ak seeni jaxase rek naka sëriñ Ibrahima nettali na ma ne ba mu jàkkaarloo kay atte muy ka borom ndar yónni commandant Louga te wax antar paret ba koy tekki ma wax ko sama aajo kay atte tontu ma tontu loo xam ne xeetuwul ak la ma ko wax sëriñ Ibrahima nee na ma xam ne kay tekki wax ja waxul la ma ko wax da koo jàngal te loolu mooy sababas lii lépp. ma dem ca ka ñu wax Pariane Jaw ma sàkku ci moom mu interprète pareetuma ci sama aajo fa kay atte Pariane Jaw daal di dem wax kay atte ne ko kii dafa tuumaal kala doon tekkil ay waxam dafa bëgg keneen tekkil ko ko kay atte daal di noppi déglu ma wax ak moom Pariane Jaw daal di biral sama aajo lépp ba mu dégg ko mu dal di bég ba ma xam ko ci kanamam mu yéemu ne ma li nga def baax na ndax waa ji waxe ma ko woon nii mu ne man de mbir ma nii la demee du leen dikkal waaw damay sax fii nag leen te nga dellu ca sa wax ko ngir mu dikk fekk si ma fii ëllëg na dem ànd ak yow antal paret bu njëkk bii tudd turuwaaja te kookee ma nga bokkoon ca rambaaj yu yàgg ya léegi nag mooy ka yenu raaya mooy seen njiit maam Cerno nee na ba mu xamee ne xam naa mbiram ma amatul fu mu jàpp gannaaw boo xamee ne la mu doon lëntal feeñ na te moo doon la mu leen waxoon ci sëriñ bi du wuy si ci coobare dañu koy forcé mu soog a ñëw ba loolu amee mu tàmbali di ma fexeel ngir ma bañ a àgg ca barabu sëriñ bi lu may bu ab ba wéyee ngir meneen lënt am dolli ko ci lënt mu njëkk ma ndax yenn yi di dëral yenn mu tàmbali di yeexamtalu ak a taayal taayallu mu ne léegi daal mënumaa dem ngir naaj wi dafa tàng mu ñu ndigul ba ker sedd ba ker seddee nu génn jëm ci barab bu jege mu ne duma dem lu may gannaaw bu ma reeree te kenn taalegul reer gannaaw ba mu ne ma dama gëmintu faw ma nelaw boo yàkkamtee àndale kii ma woon la yoon wi ndax booba jaari naag man ci yoon wu bokkul ak wa ma xamoon sëriñ Ibrahima ne mu boole ma akas waay digal ko ci secret ci suuf na ma réeral ci lënd ma guddi gi wante sëriñ na Ibrahima moom yi nit la koo xam ne la muy nooy lépp ak la muy tekkiiral lépp kenn mënu koo nax ak njuuma la maam Cerno nee ma daldi xam na waa joojee nar ndaw la ko doon won yoon wa mu daldi koy bàyyi daldi tegtaloo ci biddiw yi ndax yàlla ne ci alxuraan wa bi najmihum yuhtadoon ñoom ci biddiw yi lañuy ñuy mu jublu ci barabu sëriñ bi ci xiblag biddiw bu jubba ba mu àgg ca njël maam Cerno ne ma fekk sëriñ bi ca jullikaayam ba ay yére mu wër ko murit ya nga xam ne danañu yenu yére taxaw ba ma dikkee fa moom mu jëkkanteeg man ci laaj mu ne ma loo def ma jottali ko leneen li ma andi jóge ci ndawul borom ndar mu dog wax jaag man muy koo xam ne dane biir yi na lool te tilim na tilim joo xam ne dana soxla woo balaa set saabu bu rëy ak ndox mu bari ak fóotkat bu am doole bu dëgër jigéel si ma fas wi dénk naa leen yàlla mi nga xam ne ab dénkaaneem du sanku dénk naa la jàng ak jàngale ak bay dénk naa la soxna yi ak njaboot gi na nga sax fii ci Mbàkke Baari feek mën nga fee sax ndéem réew mi metti na ci yow mënatoo fee sax kon nag nanga dellu bawal mu daldi war jëm ci tubaab ba te nangu lool la yàlla def ak dogal ba sànni ab nosam ci loxooy kayit digle ak a tere di aji jàpp ci téereb yàlla bi ak yonent ba adduna tàgg ko foofale rekk ci moom mbooleem li mu rafet la gannaaw ba mu ko jubloo jublu gu màgg gii waaye am na mbir mu gën a màgg mi jublu ko ngir xam yàlla jublu na ko ak daraja yu ko weya boobale bés bés la boo xam ne moom bunt la boo xam ne biiram yërmande rekk la biteem ak mbugal la kem ñëkkuk kanamuk muritam ya ak xaritam ya ngir tàqalikook moom noonu la leeri kanami mbooloo mu kawe ma ak ruyu ñoñ badar ak lañu leen tëbb ci malaka yu kawe ya ngir àndaaleeg moom nekkoon na kem faccuk muritam ya seenu tàqalikook moom teewuk ñoo ñii di malaayika yi ak waa badar maanaam fa mu tàggook muritam yi rek la gaa yi badar yi agsi ci mbóot mi la waxe moom sëriñ bi asiiru mahal abraari xiina asiiru وسن العدا أني هناك أسير مسيري مع الأخيار لله بالنبي وما لي لخير الله حود أسير maa ngi dox ànd ak ñu baax ñi ba may dox samay noon nag jortu ne man mii kuñ jàpp sama dox bi ànd ak yonent bi ak ñu baax ñi mi ngi jëm ci yàlla mosuma dox mukk jëm ci kudul yàlla yaari bayit yi mi ngi jóge ci xasida gu neex a jàng gu yéemu gu rafet fent na ko ba mu àggee ndar barabu àttekat bu mag ba ca diir ba nga xam ne dañu cay seet mbiram ba xam luñ cay àtte jàppal yaxub laxas ga mooy tukki ba nu barkeelu ci ci moom ci téere bi ci mbind mi gannaaw bu nag mooy gannaaw laxas ga seggug mbir ma maanaam ba dara du ca des na ma la ko daale woon bu neexee yàlla mu ko mi mooy aji dëppale ak jub ci yàlla laa yaakaare it ak texeele ci mat ak matal ga ak bu mu terale ma nangu téere bii ak yool ga kon noo ngi taxaw fii ci waxtaanu fukkeel wi ak ñett ci xëtum ñaar téeméer ak fanweer ak juróom di séntu nag waxtaanu fukkeel wi ak ñeent incha allahu taala وكب من